البر وكف زنبا مدعته عند أناس كلوى مرحا كفاني الهدى والبلوى مني إليه ختمة قد لازمات روضته إلى الخيام هزمات رضي عني سبته الجنان عليه رضوان الذي أخلاني رضي عني سبته الخب الخسن عليه رضوان يخلد الحسن ربي عني سبته التيجاني عليه رضوان المبيد الجاني ربي عني خلفاء الأربع خست رضا المخربين المتبع من لم يكن أني يرضى فالكريم رضي أني رضا ليس يريم جزا الإله المصطفى خير جزاء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 laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah barki xam naa kon ñu taaxirlu rek euh, bañ ñu liggéey bi bu kenn yeeweeku ndax dañoo war a imaam day tëj kaamil bi sëñ Abdoulahi euh, am kàddu cant yu mu jàllale ginnaaw loolu Baye Fall nañ jël si kar si incha allah kon ñu bañ a rek ñu wàggali bis bi ci jàmm te ñaan borom nangul ñu ci barke Seyxul Xadim bisimilah sëñ Abdoulahi comme ñi ànd ak dal rek ñi nga xam ne xewloo guñ ñu génn ndànk dugg ci saal bi xewlu ñi nga xam ne xewloo guñ mën nañ dem ci saal bi. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu kilifa yi nga xam ne yii ñoo yore liggéey bi di am mbégte lool di leen dégtal rek kilifa yi nga xam ne teewoon nañ fi ci njiitul sëriñ Buso bi Buso mi nga xam ne mooy imaam bi te taxe woon kaamil bi ci suba mook ay kilifa sëriñ Bousso bi xam ngeen ne mi ngi dendoon ak alaaji sëriñ jaabi di ko bëgg sëñ lool di teewe waxtu wu nekk sunub liggéey teewoon na fi itam sëriñ Mahmoudan moom sëriñ Abdul Xafuur amoon na fi itam kilifa gu mag sëriñ Soy bu Mbàkke moom alaaji Abdu Mbàkkiri diis ñëpp xam ko teewoon fi itam sëriñ Abdoulahi juuf mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi léegi ngeen xam ko muy ku baax di doomi sëñ Cër Diouf Lambaye mi ngi fooy itam sëriñ Fallou Mbacké moom sëriñ Mamor Sam ñëpp xam ko moom it ne ko dafa itam ci ñi nga xam ne ñoo fi teew ci wàllu kuréel yi ñi ngi sant bu baax jëwriñ Issa Fall ak mboole magi kër Sëñ Tuubaa gépp ci jàppale gi ak yaatal gi di sant bu baax itam kuréelu Wallu bi nga xam ne ñoo sonn ci mbir mi lool bam jaar ci yoon ànd koog waa Bustaanul Aarifiin kuréelu Wallu bi ki ko jiite di sëñ Xaadim Lo Bustaanul Aarifiin sëñ Papa jiite ko jaawartulaa itam day jàmbaar lool ñoo sëñ Baran Sekk jiite woon leen ak alhijriya sëriñ gàmmu jiite leen ma di leen xamal itam soxna Adama Mbàkke moom sëñ Moodu Xabbaan yónnee na fi ay xéewal xéewal yaa ngi ci suuf mi ngi ñëw loolu itam ngeen defal ko ñaan bu baax ndax xam na ne bis bi bisu maamam la kon ni ngi def moo di dañuy jox sëñ bu soobee kat maanaam moom sëñ mo sëñ Mamadou moom sëñ Mamor moom sëñ Masamba wax nga dëgg mi ngi fi su ko defee dañuy dañuy jox sëriñ bi maanaam mu tëj kaamil bi bu tëjee kaamil ba noppi nag suñu mbokki baay faal yi dal di mën a dugg si namu nañ leen lool ci seen si kër su neex nga xam ne ñu ko di waxtu ne kon ñu jox sëriñ bi mu tëj kaamil bi ba noppi mbokki baay faal yi dugg si tëj ñu ko ba noppi ah, kañ léegi waaw loolu doy na waar de sëñ bi kenn dëkk bi ñuy waxtaan mi ngi tëj kaamil bi waaw kon ñaanal mbooloo mi kon ndax it kaamil moom ñëpp ñëpp moom la doon teewlu kat alxuraan xasida kon nag sëñ bi nee na allahumma balligh sawaaba maa xara naawu wa barakata maa tala naawu hadiyatan wasilatan ila rusida muhammad ali sallallahu alayhi wasallam demal <laughs> bismillah nangu leen ñaan nangu leen ñaan amin ya rabbal alamin amin amin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin amin jërë ngeen jëf ana ana bokki Baay Faal du ngeen du ngeen nit lii la la la la la la Radha Lord. la la la la إله ala درمان قال بيرفال أبيته نمبالو قال يرمان قال بيرفال أبيته نمبالو قال يرمان قال بيرفال أبيته لا لا ci yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah ci yàlla la ilaha illallah la ilaha illallah ci yàlla la ilaha illa la la ilaha illa la أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين أحببت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد ذكره الأمين لكلكلي وجسدي لا إله إلا الله ilaha illallah خبلي برورا كمل خرورا خبدا سرورا لكل راي واذكر خلامي واحمد كلامي بلا ملامي ولا امتراي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وزد براي زغزغت ديرا لخدت ميرا فلتف في جورا لمن يراي أنخص قيادي من الضلال وبالخلال خالد سراي خدني خطابا خد الكتاب واقبل متابا يا زستراي يا خير ربي خير المراب طيبت قلبي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتام وكل عاصم بلا انتهاء صلي وسلم على المتام وكل عاصم